accéléré xam naa xam naa ko loo braqué xam naa ko loo code phare ak loo phare loo signal xam naa ko damay jéem a ba naan maa si saa xaar ak daw. tu te prends pour qui. tu vas savoir de quel bois je me chauffe moi. la boîte yi allume la la porte allez. xoolal amoon je vais te montrer de quel bois je me chauffe. dëkk bi am na loi mais am na loi. mais man je représente la loi. yow daal yow yaa ma fi indi. bindal ma kayit wala nga xam nooy def. man bindi kayit man bindi kayit. waaw nga naa woote. man wootewu ma man laa après ah non mais xoolal damay xaar ba ki nga woo ñëw yaa ko xam da ngeen di boole bu ñu kaso. kaso bi laa ko boole dóor. man dara sa bopp loolu la sa bopp. espèce de sa sa sa yow. yaa ngi tam per tis. citoyen dafa am ay droit da nga yaakaar ni doon ci fii noonu la enquête ko. te kii sama liggéey la ça c'est mon problème sa yoon nawu caa ah. un point très. enquête loolu la la yow ma gis nga la doon maaleykum maaleykum salaam. waaw ah, kii nga ma doon wax nii. waaw mi ngi nii ma. ala ba ñëwaat na. man kenn maa ñëw. yow kese. waaw ah non non non. ça c'est pas c'est pas possible. Mm-hmm. c'est pas possible. yow sa ngal ngay juree ci coono bi sa teel ci man pour man dafa ne woon naa ko la bii say taxaw waa assemblée waaj sénateur yi waaj député ñoo ñëpp tout nga gouverneur yi ah sage-femme yi médecin d'état ñëpp waaj ñëw fii mais kii nga may indi kii nga may indi ah tel père tel fils tel père tel fils. waaw nga baal ma mën na ne yow yaay commissaire bi de. non je suis le petit commissaire le sous commissaire quoi. waaw ah, commissaire bi laa soxla. moom laay woote si ñu boole leen jëm amul intervention. concert waaw c'est brigadier père waaw bon nag maa ngi sama bureau quoi waaw léegi maa ngi maa ngi sama bureau bon léegi xam nga benn femme bu ma jàppoon la ma jàpp ko ci télé bi pour le plus de 18 feu rouge may wax mu may jéem a jaay naqar léegi ñëw di ànd ak papaam vaurien boo xam ni ñëw taxaw sama kanam di ngal nga leen lu nañu koy wax ak di ma jéem a jaay fa waaye ñu ngi ci kii bi mais nag brève ko amul ñaan intervention ah intervention amu ci de bu ma ñaan daal nga ma ñaan ma lay may ndax yaa sama commissaire mais tey kii li ma def dafa naqari baal ma tëj ko xam ne man jariñ naa dara ci euh, euh, commissariat bi ah pas dans un bureau tout de suite allez vous allez voir de quel bois je me chauffe je vais te faire avant l'état bulletin de naissance avec ton père. monsieur le commissaire ça va bien. ça va bien merci ça va. mais la ca femme là quoi. ah kii mooy papa. mi ngi nii. ah waaw lu xew. ah waaw yaa ngi xaw mi ngi nii. comme moom moo ma fi indi. femme bi ma jàpp ko ci route bi ma jàpp. moo fi indi li ma def. ay cent quatre-vingt di ko bi may wax bu may jéem a jaay naqari de ba pare yor dem a jaay naqari de waaw may wax noonu ah. la demee ah. waaw yow noonu la bi demee. daal lenn. waaw ci tali bu ndaw bële xam na ni kenn mënu faa daw ay cent cinquante ak deux cent. mu arrêté ma ma daal taxaw mu nuyu ma ma fay ko mu ne ma an say këyit. ma jox ko samay kayit yëpp yi mu laaj yëpp mu naan ma ay ay bulletin de naissance ay carte d'identité. mais war ma ne ko waroo ma koo laaj du yow yaa ma koy laaj. waaw moom yàggal. yaa ngi dégg mu commencé nag delloo ma samay këyit ne ma léegi ñaar moo am. keesu buur ak poosu aardo. waaw. keesu ma ko moo am. ma ne kii ne keesu aardo.

ma expliqué la tuuti ceeb boobu dama koo wax quoi da ko le man daa am sama benn maam boo xam daa tudd ardu léegi ma laaj ko ba xam-xam rek ardu wala xam ma laaj ko kirij bi léegi bi ma ne ko lii il fallait nga jënd huile def ko ndax ma pousse oto bi tuuti oto bi dem commissaire du Monsieur le commissaire. ah je suis un magistrat. tribunal laa mbir mi nag demee ne nii. ñëwuma fi pour ñaan intervention ñëw fi dara yoon moo leen fi teg yoon moo ma teg fa may liggéeyee na yëpp jaar yoon rek def leen rapport yi bu jaree ngeen boole ma ak sama doom defeere tëj ma comme ni mu ko waxee ngeen tëj ma bu jaree leneen ngeen def ko. wala rek ngeen bàyyi ñu dem parce que aw jot. non non mon chef. ñoo ngi jëlee bu baax. kii incha ah. a bàyyee ci commissariat. kii commissariat jëlee nañ ko fa fii lañ ko mujjee andi ma téye ko pour defar ko mais. toujours damaa ngi defar wóor na yàlla commissaire maa ngi defar wóor na yàlla maa ngi defar bilaay gisoo commissaire maa ngi defar. papa magistrat papa magistrat papa wóor na yàlla commissaire maa ngi expliqué la doon commissaire wóor na yàlla dimbali war a. commissaire maa ngi expliqué la commissaire may ma ma expliqué la tuuti commissaire wóor na yàlla doo ma may ma expliqué la commissaire wóor na yàlla. wuy ma kii moom arme la. mën na cee. xaw ma tënkee kàddu gi bu baax a baax man man man man commissaire war na yàlla commissaire waa léegi xanaa rek dana mun a maa dimbali. dana doon teg dugal ci grippe bi yaa ngi foofu ci grippe bi. dana fanaan foofu la yow. boo demee ci xolam billaay je ne parle rien que devant mon marabout sama marabout nga woote rajo laa billaay xanaa nag am naa droit woote benn coup de téléphone am naa droit bu ma xëyee suba am benn plat de kii ak ak reer waaye ñu naan commissaire commissaire commissaire ah nii nga ma tax a woote woote rajo laa billaay commissaire jàpp ci ne yàlla ndax commissaire.